mu mënuma ne benn bokk yaakaar nga bokk. bokkuma fa. bokkuloo fa mais euh, yaa ngi seetaan yaa ngi suivre de près ce qui se passe. waaw. Euh, alors le meilleur profil de candidat pour Benno d'après yow. c'est celui que le président Macky choisira pour gagner. j'ai pas dit qu'il l'a même lui-même dit choisir parce que j'ai c'est mon ami choisir parce que j'ai des sentiments mais celui qu'il choisira ki mu nar a tànn. ki tax bennoo war dajaloo ba gañee kooku mooy candidat bi baax kooku mooy le bon profil. mais euh, am na ñu naan Macky Sall il fait souvent des choix de cœur lui il dit qu'il va faire un choix de un de. ban choix de cœur moo exemple yow. Ah, selon ah <laughs> nga waxal nit. moom te amoo euh, argument am na ñu naan euh, Macky Sall doit faire un de cœur il doit donner ça moom mu ne il va faire. un choix de raison est ce que njort nga. ci ni est ce que amoo ma gisee nga wax ni bëggoo tudd. est ce que njort nga euh, am na ñoo xam ni nga ko xamee est ce que njort nga ne. da nga ne da nga war a wax ne xam ne dañ ne dafa war a choisir un APR authentique. Oh. loolu nga bëgg a wax. non bi dafa jeex bëgguma relancer moo tax. Ah, mais mais mais est ce que njort nga ci ni nga ko xamee ne dina génne un candidat qui sera presque consensuel. et qui pourra mieux les les, les de de de si Benno bu bëgg a gagner il faut qu'il rende le candidat consensuel candidat bi moom mënatul nekk consensuel pourquoi parce que déjà maa ngi dégg fu nekk ku nekk nga fay jog ne candidat la président ki mu war a tànn bu ko tànnee ba pare war naa waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo bëggoon waxtaan na sax ak certainement ak ñoom ne leen seen intérêt mooy bu ngeen bëggee ma jàppale leen en réalité wax na leen ko su ngeen bëggee ma ànd ak yéen ngeen ñu gañee na ngeen nekk benn te wax Sénégal yi aussi na ngeen ma jàppale ci li ma xam ne moom laa bëgg ëllëg man dootuma dem mais am na ay collaborateurs yoo xam ne kenn ku ma ci àndal jàppale la parce que képp ku fi gañe soo buggee ma jàppale la ci liggéey bi mais je pense que Benno ils doivent c'est ici à la dignité de Macky Sall jàpp naa ne waa Bennoo ak surtout waa dañu war a bañ a def lu tax Macky Sall gën gore ndax li tax euh, bi mu demee ba xam ne nekkam candidat am dina jural réew mi loo xam ne neexul te dina weddi boppam mu ne du ma nekk candidat mais seet leen seen biir dinaa seet suñ biir nañ seet suñu biir ku mën dem ñu jàppale ko mu dem waaye waaye ku mënul demal sa bopp di xaar Macky Sall tànn la waroo ci teg baat bu tànnee keneen parce que ku mun a demal sa bopp fekk Macky Sall tànnu la war ngaa dem nii tey nga jël say bagage bës say dëbës ne ko président man de duma xaar ngay tànn ndax man damay nekk candidat. am le courage de partir. dem na du yàq dara ci diggante yi Idriss Seck def na lu mel noonu je pense que yàqul diggante mu Macky Sall je suis sûr que demain le candidat de Benno pourrait demain se retrouver avec Idriss Seck éventuellement s'il y a un deuxième tour je le pense comme ça. je suis optimiste par contre ñi nga xam ne dañu wékk seen lépp ci Macky Sall kenn ci ñoom amul sañ-sañ bu Macky Sall décidé ba pare ngay jaar ci beneen yoon de toutes les façons ku ko ci def pour man je pense que la sanction des suffrages euh, say mbokk dinañ am leen naqari lool. merci beaucoup.